lay tey nag ñu am mbégte lool ak contentement ñëw teew fii si Thiès kër Sëñ Saliou di màggal guddi yonent bi salaahu salaam ñu ko suñu wasi la waxee sëñ Moutalla mi toog di ko ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala mu yàgg fi lool mbégte dëgg mooy mu yàgg fi loolu te wér sëñ Moutalla Mbacke ndax day moom ku ko xam xam ne daanaka eh, ay waxam bëriwul li muy feeñ ci presse bëriwul waaye foog fekk rek ñu ngi liggéey suñu borom ñu ñii di nag ay tout tànk daal di jokk si moom kon du am lu rek ak contentement koy sant bu baax a baax a baax. ñu ngi sant sëñ Moutalla bu wér a wér a wér di sant waajuram bi di sëñ Saliou ñu ngi koy sant bi ko gërëm di ñaan yàlla yàlla yokk leeram taas na ci barkeem ñun nag dañu am kontante gu mag a mag moo tax tey mu ñëw fii ci moom ànd ak moom pour màggal guddi gi ndax sama waa kër yi man waa kër ñoom ñëpp ñu ngi sëñ Saliou moo laal seen moo laal loxoom ci seen bopp. macha allah ah ginnaaw bi ñu gëstoo nag gisatuñ ko ah ñu jaadee ji. di sëñ Moutala parce que yéen a ànd ak moom rek fi daan taxaw ak waajuram bi rek ñu fay taxaw ak moom. أبتدي ساوي من لسندي وسيلتي موي سيدي شيخ مرتدام شيخ ساليو أنا يبقى برام جابندال برام دار منام برام عالم الحبير برام دار دار تنسير برام جنة المخوى وصف شيخ مرتدام سيري ساليو بسم الله أبتدي saway di leen dalal fii ci kër sëñ Mouhamadou Mourtala mu sëñ Saliou euh, di leen wax ne leen bis bi gis ngeen liggéey bi ni mu demee rek euh, mooy ni ngeen ko gisee ndax euh, sëñ bi dafa fonk gàmmu daanaka bu jugee ci màggal rek ci lay daal di commencé di waajtaay waajtaayu gàmm gi moo tax ni ngeen ko gisee itam ñu waajalee noonu Euh, ci ay berne ak euh, jàng xasida ak euh, salaatu ala bi ni ko ku baax ki daan dundalee rek noonu la koy dundalee ci berne tamit mbokk taalibeem yëpp moo tax ngeen gis mbokk taalibe niñ ko waajalee ci ay berne di ñaanal suñu sang bu tedd bi sëñ Moutala moom Serigne Saliou yàlla yàggal ko fi lool te ànd ak di leen ziar bu baax ci gàmmu gi waa liggéey bi nag moom noonu la tëddee ñoo nekk si waañu sëñ bi ñooy gérer gan gan yi nga xam ne ñooy ñëw ci gàmmu sëñ bi xanaa dañoo yàgg sëñ bi rek gis ne li yëdd lu mu yittewoo la lool du lu ñu jàng du luñ ñu wan dañoo gis bëgg-bëgg sëñ bi la rek ñun ñu nekk ci taxaw ci ba yàlla def saa nga ñun na kon ni ñu xamee murit yi rek moom xam nañ ne moom murit moom wax benn ñoo ànd dañuy fas yéene benn gan yi ñëw ci gàmm gi rek. mais dafa di rek bu Serigne Touba woote sëñ Moutala mu Serigne Saliou woote dañuy jaral lu ñu mënul woon rek ñu mën ko ci bés bi ndax tey ji boo ñu fekkee fii lii ñu liggéey nii li danga naan traiteur moo ko dressé alors que du traiteur ñun la rek suñu bëgg-bëgg ak suñu pas-pas ak suñu yéene bëgg def lu sëriñ bi bëgg loolu képp la. du bind ñu màggal Cheikh Mourtadaam Cheikh Saaliwu ndëggal ngërëm naa ko tëggal ku xotti baax ka tey fësal ci saaf galañ delloo njukkal Cheikh Mourtadaam Cheikh Saaliwu bu dee ku baax yeyoo nga way ku xotti baax mooy gën a xotti baax mooy gën a yey yow man ma way la tey Cheikh Mourtadaam Serigne Saaliwu ngir jëmmi Cheikh Mourtadaam way Mbakke ñu may teral Cheikh Murtada Serigne Saliou na ñëpp def nii ñu màggal sunu jàmbaar ja Cheikh Murtada. bisimilah rahmaani rahim organisation gàmm gi ni muy doxee mooy kam ni ñu koy ni ñu koy defee ci màggal gi rek noonu lañ koy defee ci gàmm gi ndax gàmm gi ak màggal gi dañoo dëppoo dañuy génn. li ci jiitu mooy daayira yi nga xamante ne ñoom ñoo féetoo fii ci kër gi. te nga xamante ne ñoo aju ci daayira Nahju bu Serigne Mourtala mu Serigne Saliou euh, fu ne am na fa moo xam ci région yi yëpp région boo boo tudd rek am na fa rawatina bitim réew ak euh, yeneen dëkk yi nga xamante ne ñoo wër euh, ci biir région bi rawatina dëkk yi nga xamante ne ñoo wër biir Sénégal lu mel ne ay Malek fu ne ci ci réew mi am na fa. niñ koy waajaloo nag mooy gannaaw bu jëkk see danañ ko waajal ci lépp loo xamante ne ci xeetu ci xeetu liggéeyal liggéeyal rasulullah lay doon liggéey liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def ci guddi màggal bi gàmb gi moom mooy euh, di dundal guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam côté bi ma féete nag mooy côté euh, organisation bi dinañ ko waajal ci suba gi ba guddi gi euh, li ko tàmbalee ci alxuraanul karim gi dinañ wàcce ay kaamilu alxuraan euh, dinañ def ay durus alxu euh, durus xasida euh, xasida yi nga xamante ne féete woon na ak di dundal guddi googu bu ñu demee ba ci ngoon gi sëñ bi dina génn ñu tàmbali ziar bi ziar bi nag niñ koy defee mooy fépp fu mbooloo jóge rek moo xam benn benn la moo xam daayira la moo xam lépp loo xamante ne ay wëllëre sëriñ bi ñi nga xamante ne àndoon nañu ak sëriñ Saaliw Euh, te fas yéene yeggale seen yéene ci sëñ Mourtala euh, fépp fu nit nekk rek dana fa jóge euh, dañuy bañ a juum juum ci lim rek waaye fépp moo xam région bu nekk am na am na ñu fay ñëw ngir di màggal bis bi. mooy sama géej may way du déglu géwal ba xol ba tilim fa yaasin ku way te woo ci yonen mbaa ca baayam araf ya nga way da ngeen ko fa yaasin te yonen naana waajuma tagga boy nda warlu naala aljana fa wayaasin li leen tax ma lim gi walab ci baatin di way Seex Bamba mbër mi fuuta yaasin borom taal booba man mooma jaral di taalif di tuuru ngir li mu doon yaasin sayyiduna Muhammad salaat naa rabbu wa awakaat ni ni laa min layal naa bàyyi Sëriñ Saalimu damay layoon yaasin sallallahu alayhi wa sallam layal naa sëriñ Cheikh Ibra Fall damay layal yaasin yow Seydina Muhammad ku lay jaay taar na sam xel dem ci yeneen mi taaru ba yàlla yónnee ku saabu yaasin Seydina Muhammad ku lay jaay taar na sam xel dem ci maaxin ka gindi sa maame weeral war na yaasin Seydina Muhammad ku lay jaay taar na sam xel dem ci taaxaa wa taaxirin ak mutaaxirin ñi ñoo dee asin sayduna muhammad bu dul bani sell te yaramam du laalañ si wul bane a muhammad bu tam bane bàq ber ba di saf de nu baat moo gën a gis borom li miyeer fa yaasin sayduna muhammad bu dul bani sell waaju ko seen di cay kaar si wul ak jumne waxtaane warteefu sopp yonente bi nga xam ne jullit bu ci ne warteef la ci yow nga sopp yonente bi boo ko soppee yam itam loo ciy jëlee ci ay meññant boo ko bëggee soppit doo tañax-tañaxu di dem lan mooy màndarga yi nga xam ne bu nee ci yow ku la gis wala ku ko xam dana ne kii sopp na yonente bi sallallahu alayhi wa kon am nay feeñ-feeñ feeñ-feeñ yooyu sëriñ Abdou Lahad dina ci ñëw yaatal ko ba bu soobee yàlla ñun ñëpp ñu mën koo ñu mën koo jël bind dana ñëw ci cheikhuna cheikhul xadiim ni mu jaayante woo nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dina ñëw ci ni mu ko daan liggéeyale dina ñëw ci ne ni mu toppe woon sunna moom cheikhul xadim ni mu toppe woon sunna teg ci tànkam dina ñëw ci méthode bi nga xam ne moom la jëloon di ko yeesali diine dina ñëw ci loolu dina ñëw ci tagg yi yonente bi yi Serigne Touba daan tagg yonente bi di julli ci moom mbooleem xeetu cofeel itam dana ci ñëw ba lépp lu laal yonente bi sax sëriñ bi day sopp loola ngir jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa loolu moo feeñ ci ne ni Serigne Touba bëgge alquran ak ni mu bëgge xadiis ni mu bëgge waa kër yonente bi ak saxaabaam ya ak ni mu bëgge xeetam wi xeetu muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne loolu yi jokk gi ñu jokk ci yonente bi rek moo tax sëriñ bi lawal cofeelam ba ci ñoo ñii kon eh, li nga xam ne moom lañuy yaakaar ci mbooloo mi mooy danañ bàyyi xel déglu bu baax fuglu waxtaan wi bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina istafa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi lislaam bi te di leen siyaara ci guddi gu tedd gi di leen ndokkeel di am mbégte itam ci jataay bi di sant yàlla moom mu ñu may ñu mën koo fekke waat ak ku tal waaye nuyoo bi ñu ci jiital ak Cheikh Mouhamadul Mourtada Saalix di ko ñaanal yàlla mu gën koo dëgëral gën koo sàmm te yeggale itam ay yéeneem ni ko sëriñ Basiru waxee ginnaaw waxtu wi mi ngi dem lii nii ñu bëgg a def nii dafa bokk rek ci li ñuy dundale guddi gi ndax itam fàttaliku ak bind ci ki nga xam ne moo waral guddi gi mu nekk rek am nafar lu ñuy nafarante ngir mën a roy ci jikkoom yu tedd yi loolu lu am solo la ni ma ko waxee tey bind bi nga xam ne moom lañu bëgg a jël ñu ngi ko jëmale ci sëriñ bu mag bi liñ mën a gis ci am mbindam akum njàngaleem ci luy jëmmal bëgg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa yoo xam ne bu ko xoolee dëgg danañ gi mu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak bëgg gi mu ko bëgg àgg na ci dayo boo xam ne kenn mësta gis lu mel noonu tem gu mel nii nag am na solo waxtaane ko ci gudd gu mel nii di guddi gi nga xam ne ci la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñ te ak feeñam jamono di texe ci mbindeef yépp tey ak ëllëg ndax moo leen génne ci leer wala moo leen génne ci lëndam yóbbu leen ci leer kon thème bu mel nii am na solo loolu ñu war ko waxtaani war ko fàttaliku ndax suñu cofeel ci moom di gën di dolli ko saa yu ne xam nañ ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi la ci ab jullit bu mën di doon farata ndax moom mooy ki nga xam ne moo gën a yell ci jullit bi ci boppam kenn ku nekk yonent bi sallallahu alayhi wa moo la gën a yey ci sa bopp moo tax sëriñ bi wax ne moom mooy ki nga xam ne ak bëgg ko farata la wax na ne wa salli da ban ala man xubbuhu furida mu ngi ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal mi nga xam ne bëgg koo farata la ci kum man di doon te loolu alxuraanul karim wane na ko ba tey ndax yàlla suñu borom mi ngi wax ñi nekkoon màkka jamono bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay na ba am ñuy gàddaay di ko fekki waaye am ñu nekk màkk ñoo xam ne xëy na kook seeni njaboot teqalikook seeni alal ak seeni kër loolu xaw naa dis ci ñoom mu leen di wax ne na ngeen xam ne kat bu fekkee ne seeni baay ak seeni doom ak seeni mbokk ak seeni soxna ak seeni giir ak seeni alal ji ngeen am seeni kër bu fekkee loolu moo leen gënal yàllaa yàlla ak yonenteem gënal leen jihaat ci yoonu yàlla kon na ngeen muñandi ko tuuti ak ba yàlla ñëw ak mbiram te muy fatax màkk loolu di wane ne kon jullit bi yàlla akub yonenteem ñoo ko war a gënal léppam ñoo ko war a gënal boppam ñoo ko war a gënal ay mbokkam ay baayam ay doomam ba ci alal jum am ak lépp lu man di doon moo tax ñu gisoon ca gaañu njëkk ña ci ñu doon gàddaay dañ daan bàyyi seen lépp bàyyi seen alal bàyyi seen i kër bàyyi seen i njaboot dem fekk yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax moo leen gënal lépp bu ñëwee ci seexul xadim radiallahu anhu moom àgg na ci ak cofeel ci yonente bi salallahu alayhi wa foo xam ne yéeme na kawe na itam bu ñuy jàng rek ak mbindam danañ yéemu lool ci melokaan bu mel noonu ak tolluwaay bu mel noonu nga xam ne moom li yonente bi salallahu alayhi waxoon dëgg ne am na ci ñoom ñoo xam ne gis ma jaral leen ñu joxe seen njaboot jaral leneen joxe seen alal moom daf ko firi bu wér moom Seexul daa ko anhu wa ardaa moo tax bu ñëwee ci biir ak dundam ginnaaw bi nga xamee ne way juróom jóge na fi ba mu tàmbali di yar ci yoonu gaañu baax ñi di yar ci himma waaye dox nag jëm ci yàlla sunu borom ànd ak ñi mu doon tarbiya foofu dafa daal jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax jaayante gi rek moom mandargam bëgg la wala mandargam bëgg sax bu kawe mu jaayante ak moom jaayante ak moom ci war koo liggéeyal liggéey bu ko kenn mësta liggéeyal jaayante moom ci war koo toppin woo xam ne waaye beesal diineem ci loolu mi ngi wax ne ubaayi al yowma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa waxaat ne baa yaxtuhu bi fuaadi xiina lam tarahu ayni wa axdimuhu lillahi muftarida baa yaxtu xeeral mursalina baxtira naawiya hijratin wa nusrin kassixaaq kon moom dafa jaayante boppam bi mu xasee jaayante rek daanaka moomatut waxtoom moomatut boppam moomatut dara topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek ak matale jaay gi te ñaan na yàlla mu may ko mu man koo matal wa asalullahi alwafa mu def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wasiilaam ngoy ci moom jàppatul ci kenn ku dul moom topp ko zahara li anna rasulallahi wasilati qat'an ila al ilahi wax ne képp koo xam ne ko am xel na itam xam na ne sama wasila mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baana li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasulu ci ak cofeelam ak bëgg bëgg yonent bi daana wax ne moom de bu fekkoon ne fekkuma ci ay jeexitam dara dara lu bi biddiw yii ak asamaan si nga xam ne wóor na ma ne daana ko tiim te daana xool biddiw yii di xool asamaan si moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkoon ne fekkuma dara dara ci àdduna lu dul yooyu rek ma mën a am lu ma wér ceng ci ne sama yéene ak cofeel ji ma am ci moom dana ma doy sëkk ngir ma mën a am li ma soxla ci yonente bi sallallahu alayhi wa loolu nag Pastef mënu ko weesu cofeel ak bëgg mënu ko weesu te loolu sëñ Mouhamadul Basir nett la ko ci Minanul Baaxil Xadim ci cofeel googu ak mbëggeel gu tar googu ci yonente bi sallallahu alayhi ci lay taxawee ci ab guntam naan ko yaa sayidi ya rasulallah ya xaradi inni ral baadika almasfuudi fi qarari fa kun muini ala nafsi wa xus bi yadi wa kun xijaabiya fi daarayni an mihani yow sama sang bi yow yonente bi yàlla bi yow si nga xam nga xam ne yaay sama xememteef maa ngi taxaw ci sa bunt mënuma fee jógee ndax damaa mel ne ku ñu jénk mënuma teqali koog yow ci bunt bi rek laay taxaw kon yàlla nag ma dimbali ma jàppal ci sama loxo nekkal sama kiiraay tey ak ëllëg kon kooku cofeel gi tar na lool waaye sax daana xaar waxtu wa nga xam ne ca lay mën a sax saafu xanteeg soppam boobu yi yaa yaa sayidi yaa buxyati yaa matlabi haadi mubaayacatun ila yowmi alliqa xataa yusaafixaka almusaafaxata allati yarju wa an yakuna muxaqaqa yow mi nga xam ne yaay sama sang di sama càkkuteef lii de ab jaayante la may xaar nag bis ba xam ne ci la ñuy daje ba mën a saafaxante moo tax daane giñ ba tey ci yàlla ne ziyaare xabar bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko gënal àdduna ak li ci biiram te cop sopp gi mu sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam far na sopp leneen lu dul moom dafa giñ ci yàlla na yaminu rabbi mazarul mujtaba afdalu min mil'il bidaadi dahaba yaminu rabbi liqaa'uhu ahab ilayya min min mil'i kon asamaan ak suuf ak réew yëpp buñ ko feesaloon ak wurus kër yëpp di wurus giñ na ne loolu daje ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko gënal ci Thiès di gàmm. Mhm. est-ce mën nga ñëw dellu dellu si ci taarixu kër gi. waaw loolu yomb lay doon ndax kër gi euh, Serigne Saliou dafay day dëkk bi day dëkkam ci Thiès. yàlla dogaloon mu ay kër yu nekkoon fee ca place daf ñu jox place de l'indépendance ca mairie Thiès ba loola loolu yàgg la ndax li tax li may xamal yàgg mooy man mi wax ak yow samay waajur wax na ma ne Serigne Saliou ma ferale kon yàgg la yàlla dogal bi nga fa toxalee ñu indi ko maanaam fay ko jàkkay murit ak kër gi jàkkay murit googu moo ba ko fa bàyyi ñu def ko kër goo xam ne dañ fay daan seen doole di fa liggéey dafa def lu mel ne ay sàkkat ak ah, ay pajaas mu bàyyi koog ñoom kër gi mu jox ko benn taalibeem bu ñu naan sëñ Daawuri Jeey muy bàyyi góor a jeey mi nga xam ne moo daan dawalal sëñ Saaliw otoom mu nekk fi ba yàlla dogal fi la bàyyi ko mu noppal dellu Tuubaa mu mu mu bi nga xamee ne sëriñ Fallu làqu te kër sëñ Fallou maanaam waa kër sëñ Fallou jëlaat ko seen loxo seen loxo sëriñ bi jël kër googu nag pàkk boobu jëbbal ko Cheikh Abdou Lahad Cheikh Abdou Lahad jox ko murid Thiès ñu def ko kër sëriñ Touba dafa jàkki murid jooju ak kër gi loolu mooy mooy sababu kër kon kër gi këru sëriñ Saliou goo xam ne kër gu yàgg la ah, sëriñ Saliou dëkk bi day dëkkam boo xam ne daf koo daf koo yàgg bëgg am fi yeneen kër am na fi jàmm gën am fi kër gi kër kër gee pàkk be am fi kër gi kel ci bis bu tedd bi di weeru bisu gàmm di bisub gan ak julli gi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu ci kàddu Serigne Mourtada ibn Serigne Saliou Mbacké man maay Jili Ndiaye di dongab Serigne Mourtada di kenn ci dongam yi nekk ak moom ci kër gi. Euh, gàmmu gi nag Serigne bi mi ngi ko indi Thiès 2010 ginnaaw bi fi sëriñ bi jógee 2008 euh, 2009 gàmmu nañ ko ngaabu la ko njëkk a woote. fa la njëkk woote gàmm gi mu njëkk a woote ngaabu di pàkk benn di pàkk ci benn pàkk yi nga xam ne Serigne Saliou Mbacke moo ko bàyyi woon fii ci euh, jamono di pàkk bu tedd boo xam ne ci pàkk yi nga xam ni moom la doon ne ci ku baax ci Serigne Saliou Mbacke ci la ko donne woon fa la njëkk a woote gàmm ci 2009 ci at ma topp ci nga xam ne ci la Serigne bi wàcc wàcce liggéey at ma ci topp di 2010 la woote gàmm fii ci Thiès woo ci bokki taaliba yi woo ci bokki jullit yëpp woo ci soppe yi woo ci xarit yi woo ci kóllëre yi kon 2010 mooy at mi nga xam ni moom la Serigne Mourtala ibnu Serigne Salihu Mbacké njëkk a woote fii ci Thiès ci gàmm li waral woote gi itam euh, gis na ni euh, guddi gàmm sëriñ bi daf ko daan dundal Cheikhul Khadim ñu xam ko ci ci mboolem barab yi nga xam ni moom la amoon ginnaaw bi Cheikh Saliou mbakke mi nga xam ne mooy woy waajuram wu tedd wa daan ko dundal ci pàkk yi nga xam ni moom la am ba waxoon ci ni defe naa ni euh, vidéo yi wala son yi ñëpp ak gis nañ ko moo ni sama barab yi nga xam ne am naa ko ca Mbuur ak ca cees ak yëpp ay gàmmukaay la fu ko fi waaye gàmmoo te di ko dindale ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggee te Sëriñ Tubaa waxee ko ci xasidaam googu ñuy wax gis bu tanzimuhu bi sunnati moo tax sëriñ bi indi gàmm gi fii di ci woo bokki taaliba yi li sabab bi itam euh, ku nekk xam na ko ci yërmandeem mu mel ni cees dafa diggu euh, dana yomb ci ñi nga xam ne ñooy jóge ci gox yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp di ay taalibeem ndax day mel ni foo ci jógee rek ngir ñëw Thiès dana dana yomb mm, sabab yooyu ñaar yooyu ma wax ndigalu sëriñ Saliou ak sabab yooyu ma wax moo tax mu woote gàmm gi fii kon day mel ni bii mooy juróom-ñeenteel bi gàmm wala euh, fukki gàmm yoo xam ne sëriñ baa ngi koy woote di ko ànd ak taalibe yi fii ci Thiès. organisation bi bokki taalibe yëpp ñoo koy ànd fekk si daayiram bi nga xam ne ñooy Thiès ndax dafa am daayira tudde ko Nahju Xadaayil Xaaj daayira boobu national la euh, Thiès la Dakar la Mbuur la Touba la Lagambal la ba kër fépp rek ci dëkk bi ba ci bitim réew fédération daayira yooyu yëpp euh, ñooy àndandoo di dundal gàmm waaye ci organisation bi ñu mm, ni ñu ko waxee am na daayira bu mag boo xam ne ñoo nekk Thiès ñoom it ñoom li ëpp ci organisation bi ci ñoom seen loxo la tege. asalaamaaleykum mbokki taalibe bi ñu ngi nuyu di leen siyaare ci mu kàddu Cheikh Mourtada Mbacké mu Serigne Saliou moom di leen fàttali liggéey boo xam ne naka jekk dañ ko doon baaxool di ko defal sëriñ bi ci ñaari daara mi ñaari daara yi nekk Xelkom muy daara daaru Minam ak daaru Limul Xabir ñu jàppoon nag jëloon ndigal ci sëriñ bi. fas yéene maanaam juróom juróomi juróom benn fan ci weeru décembre muy daay bisu ajjuma ñun ñëpp nu fanaani fa te tàmbali liggéey ba defe ko nañ ko daan defee rek loola moo mooy mooy mooy woote bi maanaam bu fépp mbokku taalibe bi nekk na xam ni juróom benn fan ci weeru décembre fas na ni yéen ñëpp fanaani xel koom bu soobee yàlla te kenn ku ne man fo fonnoo ko te waajal waajal ko te nan ko daal defee defe ko noonu te ñaanal te moom mi nga mu mu taxaw ko jàmm fekk kook jàmm ci barke Sëñ Tuubaa waaw mu liggéey nekk liggéeyu mbàcc ak jëri ak dajale ngooñ ma ak dajale gerte ga liggéey ba boobu la waaw waaw ni ñu woo bëgg taalib yëpp rek ma bawuñu kenn maanaam maanaam ñoom ñëpp sax xam nañ ni mu daan doxee waaye nag dañ ko bëgg la yaatal ba ñëpp yëg ko fas yéen daal maanaam juróom benn fan ci weeru décembre ñun ñëpp nu faani fa maam fas yéene maam defee ko defee ko ni ko sëñ bëgg ba xolam set loolu daal mooy suñu bëgg-bëgg. waaw organisation bi fii day euh, moom euh, sëñ bi day day ñëw euh, bu gàmmu gi desee ñaari fan mu ñëw ci dëkk bi mbokki taalibe yi ñiy ziar ziar ñiy joxe ay teraanga joxe ay teraanga bu ko defee tam terewul jëmmi gàmmu nga xam ne mooy essence su ñu taxaw ci mooy fexe ba def ay cours yoo xam ne kenn ku ci nekk kuur bu ci nekk day am xasida guñ ko jagleel euh, lu mel ni waa euh, jasbul xuloob seen kuuru bopp mawaahibu naafi seen kuuru bopp am amdaax seen seen seen kuuru bopp ak koo xam ne euh, sëñ bee koy tànn mu jàng barzen ji bi bu ko jàngee benn bunt wala ñaari bunt ci niñ ko tërale bu ko defee ñëlay yëkkati waa waa jasbul xuloob yëkkati dégg nga buñ noppee waa ma mawaahi bu yëkkati buñ noppee waa muxaddimatul am ndax yëkkati noonu lañ koy jàppe ba fajar eh, li ci ëpp nag buñ demee ba fajar fajar fajar gi jub day fekk xasaayit yooyu daal di jeex eh, bu ko defee sëñ bi itam eh, yeewi mbooloo mi ñaanal leen dénkaat leen seen bopp waaye nag am na lu ci sëñ bi rax muy lu am solo mooy day fexe ba daje yëpp sax la koy def waaye rawatina ci màggal ya gàmmo yi maanaam day fexe ba ñu tànn waxtaanu diine wa am solo woo xam ne day bëgg ñi ñëw euh, ngànnaayoo ko euh, seen digganteeg seen boroom seen digganteeg yonente bi ak sëñ Touba ba nga xam ne duñ am aw lay ci moom. Euh, waxtaanu gàmmu gi. waa ñi ngi tànn ci ndigalu sëñ bi mooy màndargay cofeelu Serigne Touba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xubbi Cheikh al linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam euh, ku ñuy wax euh, euh, sëriñ Abdul Ahad Bousso moo ko doon def def ko ci defin wu am solo bu mucc ayib nga xam ne bi mu ko defee ba noppi wane ne na sëriñ Touba kenn mënu koo gam-gamle ak kenn ci ni mu bëggee woon yonent bi sallallahu alayhi koo xam ne dem na ba amatul kër amut njaboot amut daray boppam ndax bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy yóbbee jaayanteeg yonent bi mu jaral ko ñu génne ko dëkkam yóbbu ko egsile ko ay ati at mu mu gàddaay munta ñëw dëkkam ngir bëgg yonente bi rek sallallahu alayhi jikko yonente baa ngi nii yonente bi ko tabe la ku baax la ku am ñeewent la ku mën a yërëme la ku ku mën a liggéeyal nit la te du ci xaar dara nee na ne ñëpp bokk koo déggandoo rek sëñ bi moom daa di ne toow rek daa di ne ca kanam day mel ni kon jikko yooyu yonente bi yoroon moom da cee ëppale ëppale gi mu ci ëppale nag moo tax yàlla eh, eh, wàcce ko wàcc wàccuwaay bu mu wàccewul kenn ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa wa rahmatullahi wa barakaatu laaj nga laaj bu am solo boo xam ne jar na laaj ci guddi gu mel ni guddi gu tedd nii di guddi gu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom sëriñ bi dafa jëloon ak dundam lépp jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëloon na ruuxam yaramam njabootam alalam lépp jox ko yonent bi yonent bi moo feesoon dell xolam mooy ki nga xam ne daal ak cofeelam ki mu amoon ci moom jégg na dayo yéeme na lool te loolu la koy màndargaal ak yu koy wane bari na moo tax lépp lu taq ci yonent bi wala lépp lu ko jege rek am na ci moom cofeel gu fees dell ndax bëggum bëgg yonent bi sallallahu alayhi tax mu soppoon alxuraanul karim sopp làkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sopp ak njabootam sopp ay saxaabaam sopp aw xeetam waaye guddi gi nga xam ne nag ci la feeñ mu am ci ak cofeel màggal ko warmaal ko loolu lépp day dellu rek ci cofeel googu nga xam ne amoon na ko ci moom ba toxoon mu jox ko ak dundam jaayanteeg moom di ko liggéeyal ci diina ji di beesal diine lislaam waaye bu ñu ñëwee ba ci guddi gi nag di guddi gàmmu dañuy fekk ne moom guddi la goo xam ne wax na ci lu bëree bëri bind na ci lu bëree bëri soññee na ci dundal na ko moom ci jëmmam dundal na ko ci ay jamonoom ànd kook taaliba yi ak murid yi daan ko taxaw ci anam goo xam ne mooy anam gi nga xam ne mooy moo dëppook sunna comme ni mu ko dee rek taatimahu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyaadul minnati li muxlisin muasim muy loo xam ne moom moom ci jëm moo ko daan taxawe ñuy jàng ay xasida di tudd yàlla waaye moom jëm daan taxaw di di di soññ di soññi mboole mi di leen dagg di leen ñaax di sax taxawul boppam yenn benn yi nga xam ne moom lañ ci daan def kon moom da koo dundal moom ci jëmmam waaye soññee ci soñ ci mboolem taaliba yëpp digg ci itam li nga xam ne moo nekk ci dundal gudd gu mel nii la ci nekk ci barke ak dolliku ak tex ak tey ak ëllëg loolu lépp nag sopp gum sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak jox gum ko jox boppam jox ko léppam mooy li waral mu sopp guddi gi dundal ko waaye wax mën nañu wax ne sax weer wi yépp la boole màggal weeru rabiul awal bépp la boole màggal daani ila ixya ida sahri kawnuhu li xëyl wara darfan xawa kulla sudadi kon moom weer wi la sax lay bàyyi xel waxuma laa guddi gi kon guddi la goo xam ne guddi gu tedd la guddi gu sëñ bi war maaloon la guddi gu mu bàyyi woon xel la gum daan màggal daan ko màggallu daa ci soññee waaye liggéey ci lu bëree bari ci ay xéewal yu ci mën a juddoo ak tex ak àdduna ak àllaaxira